bismil ilaahi ci barkeb ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla ay maqaama yalaw uqal bukaaw ala saddaati maay bëgg a way tey jii ma way fi sangub góor ñépp yalaw kookaa di seex fallu kookaa màgg moora yi mbir moo gën ñu njëkk gën ñi ñépp yalaw kookaa di seex fallu kooka mag moo rëy mbir moo gën ñu njëkk ñëpp gën ñi ñëpp yàllaawoo ku mel ni ma mosu fi am mukk dootu fi am te dootu am fii ci duniyaa wóor na yàllaawoo tey jii ma jooy sayxuna seex fàllu mbar ma ni mes mboolem lu nekk ci duniyaa jooy na yàllaawoo tey jii ma jooy sayxuna seex fàllu mbar ma ni mes mboolem lu nekk ci duniyaa jooy na yàllaw murit yi xaadir yi ak tiijaan yi ko jooy ak suusi ak asamaan seeg ndoxum yàllaw ak jant weer wi ak biddiw yi ko jooy ak doj yi ak njaayi àll yàllaw malaayika ak ginne ak yoneen yi ko jooy ak saba ya xutbu yaag wali yàllaw wiital na ruy ci duniyaa yépp kullu moo ru yépp ko cey seex fal yàlla jullit yi ak nguur gi ak àddina ñépp ko jooy nun ñépp jooy nan ko ngir baa ga yàlla nawet bi jooy na ba far gàncax gi lot na tey ru yépp nan ngir seex fal yàlla mboolem lu nekk ci duniyaa lépp lépp a ko jooy lu nu xam ak lu nu xamul mboolem lépp yàllaaw masi lañang moo la way way wi di sàkku yi ngërëm ci yàlla ak ci sëriñ tuubaa fa yàllaaw masi lañang moo way way wi di sàkku yi ngërëm ci yàlla ak ci sëriñ tuubaa fa نما سيغفر نما سيغفر نما أي يفور نيلاو موتا ما خمبوديا ak sañ-sañ ya maa la ko wax ak doole jaag may ya xar baax yàllaaw ii ma jooy fàllu laay ma silla ñaŋ na wedam saab sëriñ saab xarit cey maa sant yàllaaw i ma jooy falu lay ma silla ñeñ na dem saab sëriñ saab xarit cey ma sant yàlla i ma jooy falu lay ma silla ñeñ na dem saab sëriñ saab xarit cey ma sant yàlla fekk addunay tukki ñuy wax jëf ju baax ji mu def ku def ñu wax la ko moo def lépp yàlla jiital sëriñ bamba ak bur yàlla moo rey mbir moo jiitu duniyaa waxuraa faw yàllaaw jiitoom gi war na ku ne baa xam gi dañ ñëpp ne seex fallu rekk a dajal fépp fépp yàllaaw jiitoom gi war na ku ne baa xam gi dañ ñëpp ne seex fallu rekk dajal fépp fépp yàllaaw bu ngeen ma dégloo ma wax fallu lii ma ca lay bëgg wax waaye xaw ma lépp yàlla yow ma lépp yàllaaw su ngeen ma dégloo ma wax leen fàllu lii ma ca xam lay bëgg wax waaye xaw ma lépp yàllaaw kuy way sëriñ fàllu nay wax mbiru rëy mu dew sañ-sañ ya ak doole jaag xar baax ya yàllaaw kuy rëbb gaynde yarug laspeer asal du ko jàmba ba sax du ko saf lii wóor na yàlla kuy rëbb gaynde yarul aspeer asal du ko jàmba ba sax du ko saf lii na yàlla waykat yi lay leebu ngir seen wax ji tut ji nu wax Seex Fallu gaynde la moo man góor ñi yàlla waykat ilay leebu ngir seen wax ji tut ji nu wax Seex Fallu Gaynde la moo man góor ñi yelaw mooy doomi saamaan sëtum ñàngoor ku jóggi ne way ku toñ Sëriñ Fallu doo too dolli yelaw Seex Fallu mooy ab sërif moo yaatu moo bari ngor moo yor mu ñug suuf te falloo yaatu yelaw Seex Fallu moo saña doon aalim di àttey mbiram caalimul xaybe ngir sañ-sañ bayalaaw moom daana fekk ku jëm niiraan mu ñoddi ko fabu yërëm ko tabbal ko fil jannaati yalaaw moom daana fekk ku jëm niiraan mu ñoddi ko fabu yërëm ko tabbal ko fil jannaati yalaaw moom daana fekk ku yor bàkkaar ba xol ba tilim mu fot ko laabal ko bam leer nañ yalaw moom daana fekk ku yor bàkkaar ba xol ba tilim mu fot ko laabal ko bam leer nañ yalaw moom daana fekk ku fan way jeex mu yokku fanam moo yokk saa fan wi cey seex fal yalaw defar na tuuba ba leeral lépp bam ni fa yaax bur yàlla leeral ko mook seex bamba yàllaaw tubaa ngi làmp yi ndox meeg lépp moo ko fi def moo xotti mbedd yi leeral lépp yàllaaw okaasit moo ko fa def saxal fa xeewal yu rëy armeel yi tabax bam yaatu yàllaaw moo yokk yoonu sëriñ tuubaa wi mooy ki fi gën bam yaatu kàpp ba daj àdduna yàllaaw du denc alal lu ñëw mu fag ko joxe tabam ga gàcceel na wax set na yàlla o du denc mukk alal lu ñëw mu fag ko joxe tabam ga gàcceel na wax set wóor na yàlla o du denc mukk alal lu ñëw mu fag ko joxe tabam ga gàcceel na wax set wóor na yàlla o yawmal xiyaamati yawmal asri bun ca demee Seex Bamba jiital ko moo ni ram yàllaaw yawmal qiyaamati yawmal asri buñ ca demee Seex Bamba jiital ko moo ni ram yàllaaw ku sopp sëñ Fallu booy dee tabbi jannat ku noonu sëñ Fallu booy dee naari yàllaaw ku sopp sëñ Fallu booy dee tabbi jannat ku noonu sëñ fallu booy tee nar yàllaw alhamdulilahi yow yaaram bi kenn bañu la bur yàlla seede na lii seex saaliw kenn bañu la alhamdulilahi yow yaaram bi kenn bañu la bur yàlla seede na lii seex saaliw kenn bañu la na ngeen ma déglu te sellal xol yi kuy wuta xam lu ne ci man na ko xam yaaram bi kenn bañu la subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin